إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسر ربا وحنانا لي جد بلقيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا إذا رجعي إلى قومي زادتنا والناج بنا يوم جو إلقاء dañuy bësante rek ndax fi mu ne moom maire bi adjoint moo teew muy madame Rastel moom la ñuy jox kàddu bu noppee kenn ci daayira bi ñii nag war nañoo soñu ñëpp. parce que nous savons qui a séjourné en ces lieux et je puis vous assurer que ce que vous ressentez moi sans le connaître ce grand guide je viens de ressentir ce qu'il est vraiment pour vous. Et je vous assure que ces moments, je veux, devant le Tout-Puissant, que ces moments soient des moments de recueillement, des moments où vous allez encore voir qu'il est réellement présent. Il est là. Oui. Et je l'ai dit, euh, tous ceux qui sont là ne repartent mais qu'ils repartent avec un véritable sentiment de satisfaction, de joie. Oui, parce que ce milieu n'est pas n'importe lequel, je puis vous l'assurer, sans le connaître, je le connais. Merci encore pour ces moments et que tout ce qui va se faire soit conduit par le Tout-Puissant. Merci encore et que tout se fasse pour le mieux. Merci encore. kon ñu jox euh, sëñ Aliou Diop mi nga xam ne euh, jàngalekat la fi waaye itam ñu yor daayira bi moom la ñuy bàyyi mu présenter délégation bi teew bisimilah. Au nom du président du Daïra Mouride de Lambaréné, Mamadou Fall, j'ai l'honneur et la lourde responsabilité de m'exprimer devant cette illustre assemblée. pour vous souhaiter la bienvenue à Lambaréné et pour vous remercier de votre passage ici à Lambaréné parce que c'est un honneur pour nous. Pour commencer mes remerciements, nous allons citer quelques autorités religieuses et étatiques. Serigne Bassirou Mbacké, fils de Serigne Mountaga Mbacké. Serigne Mouhamadou Mbacké, fils de Serigne Moustapha Bassirou. Serigne Cheikhouna Bousso et sa sœur Mam Astam Bousso. Serigne fallu Bousso, fils de, fils de Serigne Fallou Bousso, initiateur des caravanes. Sokhna Mam Issa Mbacké, Sokhna Astou Gawane Mbacké, Sokhna Mousli Bousso. Le représentant de l'ambassade du Sénégal avec sa délégation. Madame le délégué spécial de la commune de Lambaréné, Madame Rachel, qui vient de prendre la parole. Serigne Ahmadou Mbaké, petit-fils de Mam Tcherno Birahim. Serigne Fallou Mbaké. Serigne Cheikh Khadim, petit-fils de Cheikh Ibra Fall. Le président des caravanes de Mayumba, M. Cheikh Mbeng et ses collaborateurs. Monsieur l'imam de la mosquée du Grand Village. la délégation venue de Libreville, la délégation de Port-Gentil, messieurs et mesdames, en vos grades et qualités, le Daïra de Lambaréné vous souhaite la bienvenue en ces terres, en ces lieux saints et souhaite que tous les travaux qui seront faits ici soit des travaux bénéfiques pour la communauté mouride et pour la population de Lambaréné en général. Pour ne pas trop tirer sur la parole parce qu'il fait déjà tard, nous voulons juste faire une petite doléance, ce n'est même pas une doléance. L'étape de Lambaréné, nous souhaitons avoir une étape à Lambaréné où les délégations viennent dormir ici et passer toute une journée avec la population de Lambaréné parce que le chef a passé deux ans ici à Lambaréné Donc, nous souhaitons, au lieu de venir juste faire un petit passage de quelques heures, que l'Ambaréné soit établi comme une étape des caravanes de Mayumba, qu'on puisse passer ici toute une journée et le lendemain, que la délégation ou les délégations continuent sur Mayumba. C'est juste cette doléance que, vous voulez, que je voulais ajouter. Je vous remercie. merci beaucoup merci li mu wax dégg ngeen ko nee nañ nee na moom li ñuy doléance bi ñuy def lu ndaw la rek bu ñu sañoon bu ñu jógee Libreville war a dem Mayumba jaar fi def fi benn fan ak dëkk bi yëpp dundal bis bi doo ko jàll nee na loolu leen neex la kon loolu xam naa suñu Cheikh Mbengue koy dégg. lu Serigne Bassirou Mbacké fils du xalif général du Mouride nañ ko déglu bu baax a baax kàddu yi mu ñuy rotol nu jariñoo ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. Serigne bi ne mi ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. mi ngi leen di nuyu ci kàddug Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñëw fii tey ànd ak délégation bi muy sëñ Mahamadan rakkam ak sëriñ Ahmadou Mbakke mu Daaru Moxti ak sëriñ Fallou Bousso ak sëñ Cheikh Khadim Fall bay daam ak ñi ñu àndal ñëpp ak délégation bi mu àndal sëñ bu mbay nee mu fekk fi nag sëñ Seexuna Buso mii ak rakkam yi ak mboolem njabatuk sëriñ Fallou Buso ak président caravane bii di sëriñ Cheikh Mbeng ak mboolem taalibe yi ñu àndal yëpp. sëriñ bi ne ñi ngi am mbégte bu baax a baax. ci jaar giñ jaar ci barab bi muy Lambaréné. te sëriñ bi nekkoon fi. def fi lu mat ñaari at. ak tuuti. jóge Mayumba. ku ne xam na it nekki ni fi nekkee woon. jaamu yàlla rek. ñu teg ko fi coono bu ne nag. waaye ku mel ni moom. kuy liggéeyal suñu borom. kuy liggéeyal suñu borom. dara dara dara jaaxalu ko. jaaxalu ko. waaye ñun nag bañ jógee ba nëgëni. waaye ñun biñ jógee ba nëgëni. Ah, ah, jaaxle nag nag suñu jaaxle dolliku na nag ci sëñ bi bu baax a baax. gën nañoo yéemaat mbiram bu baax. gën nañoo yéemaat mbiram bu baax nag. Ah, waxul la sax nee na. ne waxul téye giñ ko téye ci loxo. waaye mayuñu ko benn affaire. waaye nag loolu lépp. waaye loolu lépp. ak ni mu taxawee ci jaamu yàlla. ak ni mu taxawee ci jaamu yàlla. loolu moo yem ñëpp. loolu moo yem ñëpp. jaar nañ ca mango ya. jaar nañ ca mango yi ne fii. ne léeg-léeg da daan toog ba yàgg mu wàcc fa di ut ndox. jaar nañ ca teen ba itam. jaar nañ ca teen ba itam. xëy na sax moom suñu borom ko xéewale woon rek. xëy na sax nee na loolu suñu borom ko xéewale. waaye barab bu doon ball ndox lañ wax. mu fay dem di fa wut ndox. Ah, kon loolu lépp coono la woon ci moom. mais kon loolu lépp coono la woon ci moom. Ah, boo doxee diggante mango yi ba fii. mais boo doxee diggante mango yi ba fii. dox teen ba fii. dox teen yi ba fii. Eh, ku ne xam na ne ab la. mais ku ne xam na ne loolu coono la. Ah, coono la woon ci la woon ci moom. waaye loolu lépp nag. waaye loolu lépp. metti woon na lool. metti na lool de. ba nëgëni nag. ba nëgëni nag. mi ngi metti ci mi ngi métti ci xolu murit yi. waaye nag xéewal gi mu indaale. waaye xéewal gi mu indaale. tax na ba. tax na ba. maanaam woyof na. tax na ba woyof na tooy. ndax ba koy métti. ndax ba mu koy métti. ba mu koy nettali. ne ba mu koy nettali. am koy métti lu bu baax a am ku koy métti bu baax a baax. def koo xamal ni ko bu amutoon dara du ko jar. ne loolu yi nag la ñuy defalee suñu xol. ne mi ngi sant mboolo mépp. xam na ni ku fi ne Pastef la fi indi kon ñu ngi leen di sant bu baax. ne madame le maire mi ngi koy sant bu baax a baax. ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko. ñëw dalal mbooloo ñëw dalal mbooloo mi. xam ne ay am mbooloom lañ. xam ni mbooloom lan. ay ganam lañ laa bëgg ay ganam lan. mu bàyyi yitteem yëpp. mu bàyyi yitteem yëpp. ñëw dalal ñu fi. ñëw dalal ñu fi. nañ ko xamal ne ko loolu lu rëy. ko xamal ni ko loolu lu rëy la ci nun ñoo ngi ko ciy sant bu baax. ñu ngi sant mboolem waa dëkk bi yëpp. di sant waa daayira bi fi ne tam. donte bari wunu waaye feeñal nañ seen Pastef. ne kon nañ jàpp ne. ñu ne libre Libreville. sëñ Cheikh Mbeng ñoom. na ngeen jàpp ne kat. daayira lambar na. moo ngi ci biir daayira Libreville rek. kon luñ fi soxla rek. ne ñoom ñëpp mën nañoo ànd dox ko buñ ko defee rek dana jàppandi ne kon ñoo ngi ñaan barab bi sëriñ bi nekkoon yàlla na dem ban jox ko sëñ Tuubaa nan ñu joxe fee ca Mayumba ne mi ngi koy ñaan bu baax a baax nga xam ne buñ ñëwatee luñ fi bëgg a def man ko fee def ne loolu yomb na yàlla lool ne yàlla na ko sunu borom defal sëñ bi na jërë ngeen jëf. ces chaleureuses salutations. il vous témoigne ces sentiments de gratitude et de reconnaissance pour la qualité de l'accueil indescriptible que vous lui avez réservé. Je dirais un accueil dépeint des couleurs de l'amour, de l'hospitalité et d'un sentiment de communion. Et en son nom, ces remerciements vont à l'endroit de la daïra de Lambaréné. En effet, Lambaréné marque une étape cruciale dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'est la fin du parcours spirituel du Cheikh après son passage à Mayomba pendant ans. C'est ici, à Lambaréné, qu'il a écrit Lillahi xad wasaltu hinda galwa tout ce que je demandais à Dieu Tout ce que j'implorais, tout ce que je souhaitais, je les ai obtenus tous ici à Lambaréné. Donc nous avons un lien commun entre la Mouridia et le peuple de Lambaréné. Et nous vous témoignons tout cela devant votre excellence pour dire votre haute personnalité. Sur cela, nous comptons bâtir un partenariat solide entre la Mouridia, pour dire entre le Sénégal et le Gabon, et plus particulièrement la ville de Lambaréné, en la présence de son Excellence représentant de l'ambassadeur du Sénégal au Gabon. Encore, merci. Mille merci. Serigne Bassirou vous témoigne tout son contentement toute sa gratitude envers ce partenariat que j'allais dire qui a duré 129 ans. Serigne Touba est arrivé à Gabon en 1895. On est à la 120e année. Donc ce n'est pas un hasard que les autorités administratives de Mayomba nous ont octroyé des terres immenses pour que nous puissions y édifier tous nos projets sociaux et éducatifs. En effet, je disais tout à l'heure que nous allons bâtir un partenariat solide et nous allons le faire sur tous les plans pour promouvoir le tourisme religieux. Au nom de Serigne Bassirou, au nom de la caravane organisatrice des activités de la Mouridia, ici au de notre beaucoup, Madame imaam imaam bi noo koy sant nu mu ah, imaam Souleymane Baal waroon naa jël sax kàddu xam naa dañ koy interviewer rek ci euh, amin amin kon ñu jub wali raadahum duran wali kalamal janba aqasani al hanan min kaydi man khala wasalakana lil khilli li barma yumba muy tawfeex ju rëy